ndax mom xam na ni aduna gi muy dund amna jenen dund jo xamni mo gën fi muy dund kon julit ñi soko wowon ci jihad fi sabilillah dina génné bakkanam joxe alalam dem xexi di ñaan yàlla nak defa fofu lu ab julit tollu waye ki nga xamni dañ ci ab yahud la du egg fofu motax alquran wax ni wala tajidannahum ahrasan annaasi ala hayatin ku gëna bëgg dund ñom la ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه غيس نغا بوتي دون نيانال كين سي نيوم نيكو يال نغا دوندو جوني ات بوي واخ امين داي ملني فام نيكون داي رير غير بغ دوندو ات يو باري باري لول نك سيغ توبا تاميت ليرالال نكو وصفنا لين ميلول لين سي تيدين بوني واخ الهام السلام في الزب عن دين الاسلام نينا شيخ الخريم نينا لكنما الحرص مع الغفول طردهم للجبن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 dépp ñuy def seen protocole yi ci 1897 ci bal ak Théodore Herz xam nga ni doon xalaat won réew lañ war implanter état juif ban réew lañ ko wara def manam xalaat googu ñukay xalaat rek moy nar na suuf as yàmbu ndax bu xalaat bu jubon Afrique gi lañ koy indi waye nak kenn ci ñoom nga xamante ci bokku na ci seen seen seenu xet mom jël as jàmbur jox leen ko ni leen ka leen dëkk fi ñoñu nak moy ñi nga xamni bis bu nek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 neena na seenu mbon ak seenu ñak kersa gi ñaké kersa ci sunu borom ak ñak kersa gu ñaké kersa ci yonent bi yàlla neena lolo tax seen xol dem ba melni xeer suma qasat qulubuhum mu muj nek kom xeer fa hiya kal xijaara yàlla sax neena xeer sax ko gëna noy aw ashaddu qaswa aw ashaddu qaswa ndax li len ko li leen àggaloolu moy sa su nek da ngay gis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 yéen yéen a ñàkk wala man maa ñàkk ànd ak loolu lépp nag ak jikko yi nu wax dafa am fu alxuraan tëjee alxuraan dafa wax yàlla dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko kaay ma leeral la nag xeet wi gën a bon ci xeet wi qul hal unabbi'ukum bi charrin min dalika masubatan inda allah ki gën a bon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 nga wat ci kaw tuti yàlla di wax ni wa ba'u bi ghadabin min allah funu massa fanan rek ci merub sunu borom lanu lanu nek kon julit bi nga xamni sa buy julli yàlla mu koy digal na len di reub ndax sa bo jange fatiha ci bir julli yaangi jàng siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim tayyib sallallahu alayhi wasallam dafa firi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 go xamne da ngay jublu baytul haram masjidul haram nga bayile nak sen qibla gi ni jité waye loolu nak téxul taxul ñu bayile nak juma jumaa ndax momu ñuko juma joju di masjidul aqsa jullit ñi ñoko mom moom ñi ñom ñom mom masjid bobu muy masjidul aqsa ci loxol jullit ñi la sahaba yi ridwanullah dan nan fa dem umar omar al-khattab taxawon na ci taxaway bu am solo ak ñi ñëw ci ginnaawam taabiay nekk ba ci ba ci ba sunu jooni yàlla tay ji moo tax su nekké ci jafe-jafe yu mel non li war ci ab julit moy fexe ba dimbali moromu julitam su bu nekké ci ay jafe-jafe loolu la ñu sharia al islamiyya jàngal yàlla subhanahu wa taala dafa wax ni wa taawanu ala al birri wa taqwa yunus sallallahu alayhi wasallam sallam wax ni jullit ñi dañoo mel aw yaram yaram bu loxo dee metti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 gan gaddu ay ngànnaay di xex du lo xamanteni si lu xel nongooti la waye nak lu mu gatt gatt ñu man ko naqarlu wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Allah. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي رحمة وكاسف الغمة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فها نحن أيها الإخوة في بداية موسم من مواسم الخير والبركات وهو موسم الحج ويعني الذهاب إلى مكة المكرمة في أوقات مخصوصة لأداء عبادة مخصوصة على كيفية مخصوصة علمنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم والحج له أهمية كبيرة في الإسلام منها هو أحد أركان الإسلام ثانيا هو من أفضل الأعمال وأجلها عند الله سبحانه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال ثم جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور الحج نوع من الجهاد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فقال إني جبان وضعيف فقال, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلما إلى جهاد لا شوكة فيه الحج الحج يمحق الذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفس ولم يفسخ رجع كيوم ولدته أمه ثانيا الحج وفو الحجاج وفو وفود الله سبحانه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم سادسا الحج ثوابه الجنة أن أبي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وروي عن أبي جريح أن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم هذا هذا البيت هذا البيت من حج أو مهتمر كان مدبونا على الله إن خبده أن يدخله الجنة وإن رده رده بأجر وغنيمة ففي حديث يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينقي الكير خبث الحديد أيها الإخوة الحج يجب مرة في العمر إلا أن ينظر فيجب الوفاء بالنثر وما ساد فهو تطوع أن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى خالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبتم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم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 yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñuy loxo ngir xam ne suñ borom mooy suñ borom xam ne itam mooy borom kàttan xam ne itam mooy boromu mat ñu tàllal ko suñuy loxo ngir ñaan ko ci fan yu tedd yi ñu nekk ak weer wu tedd wee ñu génne mu ma mu dimbalinu ba li nga xam ne moo nekk ci àdduna si te jaaxal ñépp te xam nañ ni moom rek moo ci mën dara mu dimbali nu jëlee nu jëlee nu ko ci àdduna si muy lii nga xam ne jaaxal na ñëpp te xam ñëpp xam nañ ne itam suñu borom rek moo ci mën dara moom mi ci mën dara nag yàlla nañu jëlee ko fii ñi nga xam ne jot na leen a dal mu wéral leen ñoom dolagul mu musal leen ci génne ko ci àdduna sépp ndax loolu moom rek moo ci mën dara ginnaaw loolu ñuy tàllalaat suñuy loxo tam di ñaan suñu borom mi nga xam ne xam nañ mooy ki man xam nañ ne mooy ki sañ ñu di ñaan ci ban manam boobee ak sañ-sañ boobee Cheikh mun Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal say Touba te xam nañ ne doomu aadama yi rek ak lislaam moo ko ñor doomu aadama yi rek ak lislaam moo ko ñor te kenn ku ne am na ci firnde loolee nga xam ne moo ko ñor ci doomu aadama itam bëgg ko ci ñoom ak li nga xam ne moom la yéene ci lislaam yàlla na ko suñu borom jox kattan ak wér ak ak ba ni mu ko yéene mu defe ko kame njottam te ñu ànd ko moom ca daje ci ngërëmu suñu borom képp koo xam ne itam lislaam mooy sa tool ñi ngi ñaan suñu borom mu jox la kàttan jox la wér jox la tàll dimbali la ba li nga xam ne yéen ngi ko def ci lislaam nga defe ko ni kawe sa njot te daje ci ngërëmu suñu borom te ànd ci ko ak ñi nga xam ne ñoo ngi ko ara àndal loolu nag suñu waxtaanu tey ñi ngi ko jëmale ci loo xam ne dañoo toll ci jamonoom te ñu war ko bàyyi xel ndax xam ne lislaam dafa mel ni waxtu wu ne dañuy war a dañuy yee ci ne na ngeen bàyyi xel seenu dund nañuy bàyyi xel suñu dund nag mooy ñu bàyyi xel waxtu yi nga xam ne moom dañu am ci biir dund gi waxtu wu nekk am na ci lu ci lislaam waralal lu mu waral am na loo xam ne lu ñu lu nuy bàyyiloo xel la ba waxtu wu ne lenn lu ne da ko wutal waxtu wutal ko jamono loola nag dañuy yee ci ñu war nañoo bàyyi xel jamono war nañoo bàyyi xel itam waxtu ndax xam ne moom rek ci la suñu dund aju te léegi tey kenn xamut sa waxtu nu mu toll kenn xamul itam sa say bis nu toll loolu suñ borom rek ko xam comme nag mu ngi ne yee ci jamono ngir ak di ñu yee ci waxtu ngir bëgg ñu bàyyi ko xel te di ko sàmm tey mu mel ni nag ñu ngi tollu ci loo xam ne bokk na ci ponk ponki lislaam yi dañ tollu ci jamonoom ndax toll nañ ci waxtu waxtu nga xam ne ci lay tàmbali muy aj aj xam nañ ne suñu waree ci kori gi lay tàmbali ba keroo ñuy tabaski ci lay jeex loola nag kon war nañu buñ ci tolloo ñu jëm cee fàttaliku dara ngir delloosiwaat ko ci suñu xel bokk ko nafaraat bokk ko jàngaat ngir xam itte juróoy ji nga xam ne moom la ko lislaam jox xam itam ab tolluwaayam ci lislaam xam yitam njariñ yi nga xam ne moom la àndal te di ko indiwaale doom doomu aadama yi li li ñuy war nag ne lu lis lu lislaam réyal la lool mooy bokk na ci ponk yi nga xam ne ponk yi juróom yi nga xam ne ñoo ŋànk lislaam bokk na ci aj aye nag aj lim lim li mu wooteeg wuuteeg yeneen yi ci des mooy aj moom da ci man la aju te man googee nag doomu adama ji koy def rek moo ko xam keneen mun koo kenn muntu kenn mun koo àtte ci ne yow mën ngaa aji demal aji ndax xamuñu la nekk ci biiram dëgg-dëgg loolu moo tax nag moom suñu lislaam suñ borom jaf ci jàpp dal goo xam ne dafa wax ne ka ko ban rek moo koy def te ba koy def itam benn yoon rek la koy def ci ci ak dundam mu doon loo xam ne kon bokk na ci ponk lislaam yi bokk na itam ci jëf yi gën a màgg ci suñ borom ci gën ci gën cee kawe loola nag li ñu ko wan mooy dafa mat sa am ku ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi laaj ko ne ko dama bëggoon a xam jëf yi nga xam ne moom la ñu lislaam di def loo jan moo ci gën a kawe gën moo jan moo ci gën yon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni da koo tontu nag ci tontuwaay boo xam ne li ñuy tuddee usloobul hakim mooy dangay ngay da ngay laaj nit ki waaye bi nga koy laaj ni nga ko laajee doonul ni nga ko waroon a laaje moom nag mu gàgg mu mu won la ni nga ko waroon a laaje mooy lan ndax bi mu ko laajee ne ko gën jëf jëf yi gën ci lislaam mooy jën jën jëf dane ko mooy gëm yàlla akub yonentam loola nag mooy boo nee ne kon jëf li jëf ju baax joo mën a def te gëm yàlla gëm yonent bi amu ci jëf ji kon solo kon li ñuy war a jiital ci ci jëf ngir mu doon loo xam ne moo ñuy dëgëral suñ jëf mooy mën a baaxal suñu jëf mooy dañuy gëm yàlla gëm yonent bi keneen jeneen jëf joo mën di def lu mu baax a baax te àndut gëm yàlla gën àndut gëm gëm gëm yonent bi doonut loo xam ne li ñuy jëf ju ñuy wax ne mares na koo nangu ci lislaam ndax lii bopp bu lislaam yow nanguwoo ko loola nag bi mu ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo xamal ko loolu nekk kon li gëm li nga xam ne moom la ñu war a gën a ittiwoo mooy gëm yàlla ak yonentam soo gën a gëm ci jëf yi nga xam ne moom la ñuy jëfloo mu mu ne ko kon bu loolu jàllee bu gëm yàlla ak gëm yonent bi jàllee ban mooy ci toppaat mu ne ko nga na lislaam joojee nga xam ne moom nga xam ne gëm nga ko te woon ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo la koy jàngal nga doon loo xam ne da lay jaral dara na la jaral sa at sa am-am na jaral sa man-man na jaral sa kàttan beneen ba ca teguwaat mu ne ko kon banan ban ba ca toppaat mu ne ko aj goo xam ne dañ koo jaaral ni nga ko war a jaaral defe ko niñ nga war a defee kon muy ñetti bi ñetti mbir yoo xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bokk na ci jëf yi gën a kawe ci lislaam bokk na ci li nga xam ne itam ne ji aj lu am solo la mooy bokk na ci xeeti jihaad yi mooy jihaad nag mooy li li li nga xam ne moom woon ne gëm nga ko dalay jaral dara na la jaral sa alal nala jaral sa bakkan bu ko laajee na jaral sa man-man na la jaral sam xel loola mooy jihaad kon tuddul rek ne gàddu jees rek la tekki waaye li muy tekki mooy sa man-man ak sa am-am na na la ko lislaam jaral loolu moo tax nag am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man day mu mel ni kon moom dama jàppoon ne mooy jihaad mooy gàddu jees rek dem ca toolu xare ba loolu la jàppoon bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaye man xool naa sama bopp xam ne ab ragal laa xool naa sama bopp itam nekku néew doole laa ab ragal néew doole nag yaakaar naa buñ ko buñ ko dee séntu ci koo xam ne dafa ragal boole ci néew doole buñ ko dee séntu ca toolu xare ba yaakaar naa la fay def du bari ba mu ko waxee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag kaay nag ma wax la loo xam ne aj jihaad lay doon te dégg sax du la fa jam mu ne ko loola la mooy lan mu ne ko mooy aj mooy aj kon mu mel ni lislaam dafa doon loo xam ne doonut day togg nit ki lu mu wala la mu ko togg tam tam man tam doon lu toll ab tolluwaayam ak man manam lu mu ko lu mu lu xeebu xeebu itam la ca ka nga xam ne nekk ci kawam di def lam cay am moom la cay am ci li nga xam ne moom la ko lislaam togg togg loola nag di woon lislaam ni mu yër bare yër mëne ak ni suñu borom yër bare yër mëne ci doomu aadama yi ba lépp kenn ku nekk la nga tollool la nga cam la nga ko def bul ko xeeb ndax xam nga ne kala kala kawe ak gën ëpp la doole gën laa mën a def lu muy def itam du la ëpp du la ëpp ak fay la nga xam ne moom ngay def te tolloog moom loolu lislaam moo ko def ngir ngir bu wane yërmandeem ak ak bëgg ak dencal gi nga xam ne moom la suñu borom dencal ak cofeel ak mbëggeel ci doomu aadama yi leneen li nga xam ne itam aj dana ko def mooy doon na loo xam ne day far al bakkar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne képp koo xam ne aji nga te ba nga demee jëfoo fa yenn ci axaan defoo fa itam benn ak loo xam ne génn na génn na ak njub waaye dangaa def lé waxoo fa luy loo xam ne waroo koo wax defoo fa itam loo xam ne waroo koo def ne eh, nee koo xam ne def na noonu bu dellu siwaatee jóge ci aj ga day mel nii koo xam ne suñ borom da koy doog day mel ni liir boo xam ne bii soog judd la te xam nañ liir buy soog a judd amul benn bàkkaar boo xam ne moo moo nekk ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat itam ne na ngeen xam ne ajkat yi ak umrakat yi day ay gani gani suñ borom lañu te kenn ku ne xam na ne gan moom teral mooy ci waral te xam nañ ne bu dee woo bu dee wax teraanga rek suñ borom a ko gën a mën ñëpp loola nag moo tax mu ne kon ñooñu nga xam ne ñooy ajkat yi ak umra yi am umrakat yi day dañu xam ne gan gane suñ borom lañu ganuk suñ borom nag doomu aadama ci àdduna benn lekk soxla am la fi am àllaaxira ëllëg nag njëggal la fay la fay mu ne bu fekkee ne nag ci àdduna si la la laaj dara loo xam ne lu koy defaral am la te duñ ko yàqal ci dara ci li xam ne mooy pas-pasam su ko ñaanee suñ borom dana ko defal bu dee dafa jéggalu itam ngir ngir xalaat ëllëg suñ borom dana ko jéggal mu doon kon yoo xam ne lu am solo la moo tax bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat itam ne aj day ak payam mooy àjjana loola nag Abu Hurayra moo ko nettali ci wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne day boo umra benn yoon ba ba keroog ngay umra loo fi def ci ay bakkaar yoo xam ne yu bakkaar yu mag la suñ borom dana la ko jéggal ba aj nag moom goo xam ne gu suñ bo comme benn yoon la la war ci sa dund boo ko defee ni nga ko war a defee nee na ëllëg amul benn pay lu dul àjjana rek loolu itam doon kon lu xam lu am solo yonent bi sallallahu alayhi di wax ne na ngeen xam ne day lisla aj moom moo moo mooy ponk mooy li nga xam ne moo dëgëral maanaam mooy ponk bi gën a dëgër ci lislaam li ñu koy won mooy xam nañ ne kuy julli ku man di doon makk ngay jublu ndax mooy suñu xibla kon loola mën na ne mooy su bokk na ci bokk yi gën a dëgër ci islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne nag képp koo xam ne jóg nga jublu foofee benn yàlla dimbali la nga dem ak jàmm dikk dikk ak jàmm wala yàlla dogal la may dogal ci foofa nee na bu ko dagalee ci bu fekkee dafa dogal li mu dogal ci yow foofa de itam nee na amul lenn lu mu lay fay bu ëllëgee lu du tabbal àjjana bu fekkee ne dellu si waat na la itam na nga xam ne dellu si nga ànd ak yoolu yu rëy ak pay yu rëy yoo xam ne suñu borom jox na la ko looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal wax ne na ngeen di bari lu ngeen di def aj ak umra bu fekkee ne yàlla mën loo na leen ko ndax kat ñoom ñaar am na ñaari mbir yoo xam ne doomu aadama gën na koo ragal ci adduna si ak bi mu gën a ragal ci àllaaxira te yooyee aj da koy def da koy da koy far mooy ak ñàkk kenn ku ne xam ne doomu aadama moom la gën a ragal ci àdduna si àllaaxira lañ fa gën a ragal mooy ay bakkaar te nee na ñaar yooyu day aj ak a yoo xam ne danga koy far di def ci kaw sa kam lay kattan day da koy day far jaar yooyu te loolu xam nañ ne mooy mooy mooy li nga xam ne nag moo ñu war te moo ñu war ko bàyyi xel ñaareel bi nga xam ne itam ñu xam ne aj de moom benn yoon képp la la war ci sa dund lu dund rek yow da am loo xam ne xëy na ay jafe-jafe la wala ab tolluwaay wala am itti wax ne kat man bu suma itti ji fajoo wala su ma su ma tal su ma tolluwaay bi bi ko suñ borom dindee dinaa aji kon loolee nga xas nga wax waxal sa bopp yow da nga koy da lay war nga def ko doonte njëkkul nga aji itam du tax nga du tee li nga wax léegi ni dana war nga war a ajiwaat li ñu xamal ne nag aj benn benn yoon képp lay war ci ci ci doomu aadama moo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas waxtaan ak ay nit waxtaan ak ay sahaaba wax leen ni xam leen ne yéen doomu aadama yépp dey suñ borom aj benn yoon la ko bind la maanaam bind na ci yéen da ngeen a war a aj maanaam farataal na ci yéen da ngeen a war a aj kon nag bi mu ne yàlla day na ngeen xam yéen doomu aadama yépp ne suñ borom farataal na ci yéen aj am ki jaar di jóg ne ko waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aj googee at mu ne dañ koy def bañ ba mu ko ba mu jógee laaj laaj boobu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne cell mu laaj ko beneen yoon mu ne cell mu laaj ko ba muy ñetti yoon mu mel ni kon loolu am na loo xam ne warees na ko ci jàgg ci ay teggin ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon ñeneen bu doon ñeneen yi wala ñi nga xam ne xaw nañoo demee ni man buñ leen laajee loo xam ne wër sa nekk ca saasa rek dañuy daal di tontu wala ñu wax waxi ko waxi nu wax ne koo kala doon sax mën naa caa ànd ak kersa waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan na def mooy bi ko walaaji bi ko walaaji waa ji laajee te xam ne moom xam na lam ko waroon xam na lam koy tontu xam na itam ndax lim laaj lu war a laaj lu ñu war a laaj li war a wëtu laaj taxut mu gëddu ko wala mu wax ko waxin woo xam ne waxin wu ñàkk teggin na da ko bàyyi mu wax ko ba ñetti yoon ba mu waxee ba mu joxee ba ñetti yoon na mu ne ko bu ma ne woon waaw de at mu ne lay war kon at mu ne da leen di war te xam nañ leen loolu kenn mënu ko yéen aj maanaam ñi ñi war a aj jépp mu ne wuñ ko noonu kon nag bu fekkee ne dama leen a wax ne def leen nangam nangam joojee ma leen wax na doon seen itte rek ngeen bañ a bàyyi xel la nga xam ne moo ci war a toppaat ndax bu fekkee ne dara war na caa toppaat na ngeen xam ne man dinaa leen ko wax ndax maa leen di jottali comme jottaleegu ma leen nag jërul ngeen di laaj loo xam ne da ngeen a jàpp ne xëy na yéen warees na ko ci mën a boole te fekk na waru cee fekk na waru cee bokk ndax lu ci war a bokk lu ne dinaa leen ko wax di ba mu leeru ne mu ne mu naan ne ko kon nag bu ma ne woon waaw da leen di war at mu ne kon kenn ku ne aj da koy war at mu ne te loolu xam naa ne mënu leen ko moo leen waxul boo amee loo xam lu nga xam ne nekk na ci seen xel te ngeen jàpp ne xëy na lu ci war a dugg te waxuma ko li ngeen war a def moo leen nee leen càll ba déglu déglu ndax man danaa leen ci wax dara wala wax leen waxut ma leen ci wax dara bu ma leen ci waxee dara nga ngeen xam ne kon noona lañ ko war a defee moo leen ci waxu dara itam ngeen xam ne loola lu ñu war a bàyyi la ndaa daal leen xamal ne day ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te yàlla suñu borom yónni ci ay yonanti yonanti ci ñoom la tax ñu alko day moo dina dañoo nekkoon ñoo xam ne saa yu yonent bi wax sule saa yu yonent ba leen bañ ci ñoom waxee dara ñu ne ko ah, nangam nag bu waxaatee ñu ne ko nangam ak nangam boole ko bu leen waxee nangam jooje itam ñu ñu cey am ay xel yaar di di di di ci jéem a yoranteeg moom mu ne loolu nag moo taxoon ñu alku kon te loolu moom bëggut bëggalu koo xeetam kon bëggut ñuy dugg ci loo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doonee lu mu war a jottali dana ko jottali bu ko jottaliwut nag nañ ce nañ ne ceel déglu ba xam lan la cay wax daal ne li ma leen di li ma leen di wax daal nga xam ne aw yoon la woo xam ne moo leen di dimbale mooy bu ma leen digalee dara na ngeen ci def seen kéemtaay kattan ci def ko bu fekkee ne naa tere naa leen dara itam na ngeen def seen kéemtaay kattan ci bàyyi loola. loola kon mooy li nga xam ne mooy li li ñu war a dox suñu digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu digalee ñu def ko bu ñu teree ñu bàyyi ko ni comme ni ko suñu borom waxee wa maa aataakum rasuulu fa xuzuuhu wa maa nahaakum anhu fantahu kon yàlla mi nga xam ne mooy borom mu yërmande te mooy borom jéggal yàlla nañu suñu borom borom jéggal yàlla ñu suñu borom boole yërëm yàlla ñu suñu borom nangul suñuy jëf ci weeru tedd yi nga xam ne moom lañu génne te yàlla ba am def ci ay lépp doon yërmande ak xéewal ci ñu jullit ñi ñu war a bàyyi xel loole ñu xam ne itam nag lu baax ñu la ca dugalee ba nga dugg ca yaakaar naa wonaat ko ginnaaw loolu adduna jëru ko wala lu ko war a jar ci adduna amu fi comme yàlla dimbale ñu kenn ku ne yaa ngi doon góorgóorlu sa kem lay kattan bi nekkee ci koor gi na nga nañ gën a góorgóorlu ci téye loolee bañ a bañ a deltu ginnaaw bañ a jëmaat feneen foo xam ne bokkut ak fi ñu war a jëm loolu suñu borom mën na ko jàpp ne yàlla na ko defal aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim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 السلام عليكم السلام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 بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي كلها ما أبقيتنا أبدا وأن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وغفرانا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات